bëgg Macky Sall wan ko ne ko ah sëñ bi dalaa junjoon am na ñoo xam ne sax dañ ciy dem yegg bay wax ne sax ku ko contre sax yàlla nga ko ndax yàllaa ko fi def wala nangam nag waaye yàlla mi ko fi fal moom xanaa yàlla moom it moo fal fii ay gone yu mel ni man alaw la bay bëgg a dee contre makki Sall respecté leen yàlla jooju tamit mhm. fal euh, sàkk ma def ma may opposé asalaamaaleykum mbokku internetu IYAT TV ñu ngi leen di nuyu euh, di ñëwaat ak yéen ànd ak euh, Saa Wolof waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy actualité national waaye tamit euh, li nga xam ne mooy lëmbee jamono bi jamono réew mi jamono bi jëme ko ci wàllum politique dañ koy nuyu su ko defee ñu bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet yi waaw eh, yaat ñu ngi leen di ziar di ziar mboolem seen mbokki internet yi di ñaan yàlla suñu borom leeral suñu dënn mm. te eh, yaatal suñu dënn leeral suñu làmmiñ ba lees fii mën wax rek mm. eh, ñu mën cee jëlee njariñ di ñaan yàlla moom musal ñu ci gaagaandey làmmiñ gaagaande mooy accident mm. <laughs> di la jaajëfal bu baax waaw jërëjëf Abdoulaye Cissé Saa Wolof dañuy ñëw jiital li nga xam ne mooy suñu waxtaan tey. Hmm. Euh, procès Mame Mbaye Niang euh, ak euh, Ousmane Sonko mën nañu wax ne mënuñu wax actualité génne ko ci. Hmm. naka nga gisee projet boobu nga xam ne woote woon nañ ko le 16 bi weesu. waaw dama yaakaar ne procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko doonut lu war a am. Hmm. te bu doon am sax ñaari nit ñoo xam ne kenn ki nee na kii da koo diffamé Hmm. suñ xooloon waxi Mame Mbaye ak waxi Ousmane Sonko danañ xam ne Mame moo gën a diffamé Ousmane Sonko. Hmm. ndax giñ na ko yàkkataankat. Hmm. ba giñ ko ku yemut ci yàkkataankat rek waaye giñ ko ngóor jigéen mën nañu ndax ndax kuy sëyee jigéen ci gannaaw. ak yu demee noonu mën nañ koo tekkee loolu ndax loolu moom jigéen ak góor a ko bokkule. am ci yu bari yoo xam ne ni wax nañ bu dee Ousmane Sonko nag dana ko wax na ko dañ laa épinglé rapport sangam daf la épinglé. te Mame Mbaye ñaar déglu nañ ko mu wax rapport am na Amadou Ba mim ci doon ŋàññi gis nañ mu wax rapport am na kon su ñu demee bay wax waxu diffamation am na leneen lu ñu war a mën a wax lu du loolu leneen li nag mooy procès Prodac moo waroon a am tey bu fekkoon ne nekkoon nañ ci état bu organisé mooy li ñu yor ñun ñëpp ñoo ko moom ki ci buur ak ki ci baadoola ak ki ciy sëriñ ak ki ciy taalibe ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu dénk ko nit kooko am ñu mu tab ginnaaw bi ñu ko falee mu tabbu ay nit ñooñu mu tabbu Mame Mbaye Niang bokk ci muy mu dénk li ko Prodac Prodac am ci loo xam ne nii naal yu mu naaloon jàppoon ne nanga mi xëy dina ci am mu appoon ko ci mille emplois te bi ñu noppee gisuñu lu mat mille emplois loolu bu dut euh, luubal gisuma lu dut luubal beneen bi mooy euh, fu mel ni Kédougou am ci barab bu ñuy wax Itato ñu waroon fa amal luy tollook euh, juróom-ñett fukki mbalka ak ñaar te bi ñu xoolee fanweeri mbalka amu ci loolu bu luubal gisuma leneen lu dul luubal ñu gisoon euh, foo xam ne ni dañ ne woon liñ doon lijjanti mooy cent mille tonnes de maïs te bi ñu demee gisuñu lu mat trois mille tonnes wala mille tonnes ci biir foofu bu dul luubal gisuma luy luubal mu am ci loo xam ne tey bu ñuy wax nag mooy Macky Sall lañ ko war a ndax moom lañ denk suñu dëkk ba tey mooy suñu 10 pour cent active supplémentaires yoo xam ne ni mu ngi ko wanteer jaay ko euh, ci or Sobodola loo xam ne ñu ngi ko fa am 10 pour cent supplémentaires yooyu tolloon ci njëgu 10 euh, millions de dollars di nekk 5 milliards francs fa cinq milliards yooyu ñu jël ko jébbal ko direct foofu te loolu dafa waroon dugg ci budget bi dañoo ne bopp recette wala dépense dafa war a dugg ci budget ba pare ñu xam ba dugal ko ci biir doo ko xam buy génnaat génne nañ ci nangam wala nangam buñ ko fa dugalee tey ñun ci euh, njiital Claire Vision gindi askan wi Clédor seen di suñu serviteur interpellé woon nañ ci Mame Mbaye Niang ak état du Sénégal mujj ñu wax dara Birahim Seck wax ci keneen ak keneen wax ci Amadou Ba tey jii tey procès Mame Mbaye Niang lañ waroon a wax waaye jël ay dossier di ko classé classé googu mooy nit luubal nga jël ko denc ko ci ronlal gi bañ ko séentu ci ron lal gi Ousmane Sonko nag dafa ñëw waa Sénégal ne leen séentul naa leen ci lal gi ne gis rapport euh, IGE te fekk mu waroon wax IGF mhm. IGF mooy inspection générale de finance bu mu gàlloo ci ministre de finance IGE di inspection générale d'État boo xam ne ci wàllu exécutif maanaam palais fa la gàlloo kon tey bu amoon ko war a porter plainte waa e ñoo waroon a porter waaye du Mame Mbaye Niang mbir mi daal mi ngi mel ni Ousmane Sonko ne ko yaa jël caagir ji mu ne ko du ci yi njur ni la te lépp di cere loolu mooy li nga xam ne moo ci kon réew moo xam ne ñun ñuy tëgg woon de loolu nag ci la askan wi waroon a mën a jóg xeex mu jar ay série série de mars yoo xam ne bu doon jar askan wi di wàcc saa su nekk di ko amal suñu député assemblée nationale yi dem laaj ci Amadou maam jóg ñu indi ci ay leeral ak yu demee noonu bu loolu doon am tey Macky du ko tal ba maam Mbaye Niang di ko tal askan wi la ñuy yàpp ñàkk fayda jàppe leen ñu ñàkkee fayda war maalu ñu tax ñuy ñëw koo xam ne dañ laa war a topp di la yuuxoo sàcc yow yaa jël di yuuxoo topp micro yeeg yi di yuuxoo sàcc loolu nag aw saaga la ci ñun sénégalais yëpp ñu war a taxaw nag jàmmaarloo ni ñu koy def noonu la demee. waaw ba tey dañuy des ci loolu nga xam ne mooy euh, rapport bi euh, gis nañu ne Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la ñu porté plainte euh, bi ñu ko wooyee. wala boog bi bi ñu ko porté plainte ginnaaw bi def na conférence de presse wax ne lii nga xam ne mooy rapport bi tamit ci internet bi la ko gisee am na ay juristes yoo xam ne wax nañu ne même bu yóbboo rapport bi sax Euh, bi projet mënu ci génn ban gis nga am ci loolu. li tax euh, mënu ci génn mooy li ñu jël classé ko daal koy mën a jël secret d'état loolu mooy mbir mi. lu mel ni rapport hmm. Petrotim bi nga xam ne moo fi amoon muy moomeelu Sénégal yi. Hmm. ñu wanteer ko jaay suñu pétrole sa sàcc boobu trian boobu Frank Timis. nga xam hmm. ne euh, lii la ci anam yoo xam ne ni dara baaxu ci. loolu ñu daal di pare daal di classifier secret d'état rapport boobu loolu lan moo ciy secret d'état. lan moo ci doon lu ñu warta mën a xam waaye sàcc nañ alalu réew mi li ngeen ma dénk mm. xoole naa ba ñu sàcc ko léegi nag bëgguma ngeen xam sàcc giñ ko sàcc mm. loolu mooy moo tax mulu mooy indi classe léegi nag mbir mi foofu waratu faa nekk mm. fi war a nekk mooy li ma wax sànq ñi nga xam ne homme politique yi fi nekk muy député yi wala nangam ak nangam société civile ak yooyu ñëpp li ñu war a woote mooy ay dox doxi ñaxtu yu tëë dakk fekk andi luñ ciy leeral bu ko defee loolu daal di tëb Mm. kon Ousmane Sonko da ngay gis ne foofu du cuune la tax mu indi baatu internet bi ca laa ko gisee. Mm. mooy wane ne rapport bi am na ba pare. dama koy faral di misaal mi ngi mel ni ñaari xale yu doon jote uh, kumba am nday la ak kumba amul nday. Mm. kumba am nday mi nga xam ne moom lañ nopp ndayam te kee moom yaayam gaañu na. dëkke tooñ bi mu tooñee ki nga xam ne amul nday dénoncé ko bañ jotee moom mu daw ci seen baay ne ko kii daf maa tooñ. te moom kat daa saaga nday kee daal di fayu waaye kële daa dem fen baayam bi mu maa mu ne ko lan la mu ne ko daf maa saaga baay léegi nag mu ne waa yaa ko saaga baay wax ma ni ko saagaa baay te baay ji moom li mu bëgg ñu wax ko ni mu ko saagaa mooy sa nangam taanu baay nangam. Hmm. te loolu bu ko xale bi tuddee <laughs> baayam day dal ci kawam. Ah. duma ko lay bëgg def léegi nag baay ji loolu la bëgg. léegi mhm. nag foofu rek lañ toll loolu mooy li nga xam ne moom pour ci explication yi gën a simple. Mhm. noonu la demee mooy tey mhm. Mame Mbaye Niang moo war a leeral li ñu ko joxoon lan moo tax moom ministère la dañ koo dénk loolu du daray diffamation dañoo bëgg xam lu leer dañ laa épingler. épingler giñ la épingler mooy rapport da laa jàpp. ngay sa loolu wanee ne sàccu moo gën a am solo que du diwuma du IGE mooma épingler IGF e la wala nàngam nangam caaxaan yi réew mi yegg na ci. caaxaan yi egg na ci extrémité extrémité daal fi mu war a yem mm. loolu la rek. ak ak ndëgg sërëx yiñ ko lalal yëpp ci biir euh, projet bi euh, lu ci mel ni li ñuy wax naan procureur dolli na ko ci ci ay euh, tuuma yoo xam ne mi ngi ci ci biir dossier bi. Mm-hmm. jàpp nga ne ak réforme bi ñu defoon ci fichier électoral bi wala ci code électoral bi. jàpp nga ne Ousmane Sonko mën na surmonter état étape no non askanu Sénégal ñoo war a surmonter loolu parce que nag ñun ñooy tànn. ñun hmm. bu fekkee ne sàcc ñu neex ñun réew mi kenn waruñoo waroon a tee ñu tànn sàcc. Ah. jëli loi di teg loolu waxin la mooy ñun jàpp naa ne sénégalais yi. Hmm. bala ngay mën a wéet. dangay ah. am fukki at ak juróom-ñett mooy voté. da am fukki at ak te yaakaar hmm. naa àpp wéet amul ci réew mi. mooy bu ba ngay doon màggat wala yu demee noonu. njëkk nañu jëlal benn loi ne ñu képp ku ñu condamné plus de cinq loo xam ne Karim Wade lay visé loolu taxul sax mu loolu mën a nekk parce que bi ñu koy ne dañ cee fàttee dugalaale ne perte na ay droits civiques am ak yooyu ñu daal dem ba ca euh, code électoral bi ci article 57 teg fa ne tout sénégalais électeur loolu mooy kon bala nga ne naam ne fa loolu Karim Wade da ko a jóg waaye dem nañ ba jël beneen loi bi ñuy waaj a jëm 2019 boo xam ne dañu fixé maanaam âge vote bi hmm. ci ku ëppal 75 ans mënatoo dem loolu Ablaye Wade la te loi hmm. warut demee noonu loi da nga ko war a def pour kii loolu daf ñu ko tàmmal nga doog ñëwaat ci boo xam ne moo tax lii li ñuy wax conspiration complot sax laa koy wax hmm. man daan naa dédouaner état ne lii ay nit ñoo xam ne xaj nañu ko bëgg ñoo ko defal pour bëggoon a dugal Ousmane Sonko mu mujj nekk conspiration pour moom mais dama gëm ne léegi hmm. sax complot la dès le début parce que loi bi ku ko visé xamoon nga li ngay visé léegi nag hmm. te ñoom bi ñu koy visé yàlla da na weer mooy dañoo demoon dafa waroon dañ ko waroon jébbal constitutionnel conseil constitutionnel pour mu dëggal constitutionnalité wu li ñuy voté ji ensemble li ñu war a yóbbu hmm. conseil constitutionnel ngir mu mën a dëggal loolu ñoom sept sages lañ te faaw loolu mat hmm. ndegam loolu matul nag toolul sax hmm. waxantuma la euh, mat gi maay ñeent lañ amoon te toolul bu ñu amoon cinq sax mën a am lay ah. mais jamono am na ku dee te ñaar ñi demoon nañ retraite effectivement kon quatre personnes la au lieu de sept personnes loolu valable kon suñu député yi foofu la ñu war a mën a attaqué bu leen ko assemblée nationale kii ndax ñoom li ñuy wax mooy ay euh, ngombalaan ja jàmbur yi muy député yi mm-hmm. ñoom ñooñu fa teewal toll ci lii mu juróom benn fukk ak juróom Sénégal ñun ñi ngi toll tey ci euh, fukki tam daret daret ak juróom-ñaar yu tegal euh, juróom-ñaar téeméeri junni maanaam million mm-hmm. millions cent habitants mm-hmm. loolu ñoom dañoo wuutu foofu léegi nag bu fekkee dañ faa dem Mamadou Maam Diop bëggu faa bëggut a teg mbiri ci yoon ñoom dañoo war a dellusiwaat ci ñi leen yónni woon ñoo leen yónni woon ñu daal dellusiwaat ci ne li ngeen yónni woon ko dañu ko gàntal bu ko defee nag nañ daan def ca ba am ànd sàmm ju koy doon dem di yóbbu ay loi ensemble ñu bañal leen ko mm. ñu daal génn wootee ay manifestation ñëpp génn bu boobaa mm. sénégalais yëpp noonu la ñu war a mën a génne moo tax démocratie mm. lépp du lu ñuy acquérir dañ koy conquérir lu ñuy yalwaan du lu ñuy kii dañ koy foqati kon na réew mi génn ñu dem foqate ji loolu dindi li nga xam ne Macky Sall min ko defoon pour gaara gaara faagaagal ay adversaire que ça soit muy Khalifa muy mm. Karim wàdd muy Sonko <coughs> alhamdulilah di mm. ñëpp tey loolu moo war a doon suñu taxawaay mm. tey waruñu la peur doit changer de camp mooy tey du askan wi ñoo war a ragal waaye ñii jox ñi diñu jiital ba pare taxaw li ñu jaay doole ak di ko geree ay kilifa ñooñu lañu war a taxaw ba ñu ragal yaa ngi ko talatu du duñ ca dalul du metti yaa ngi wax ne Ousmane Sonko moom warut a surmonter euh, peuple bi ñoom ñoo war a surmonter lu mel nii. mais tamit xam nañu ne euh, atte bi diggante Ousmane Sonko lay doon ak Mame Mbaye mbir mi ay ci ay texte lay nekk. Euh, buñ ko xasee jàpp nañ ne buñ ko xasee voté moom Ousmane Sonko buñ ko xasee éliminé Ousmane Sonko mënatul bokk que ça soit ñu wàcc ci terrain beeg. ñu ñàkk cee ci jamono bii ñu toll lan moo war a nekk taxawaayu euh, ndaw ñi maanaam population waaw damay fàttali Alioune ba Cissé bi mu ñëwee constitué wu ma koy ñaan yàlla na ko yàlla yërëm ma koy ñaanal jéggal ko. mu constitué woo ci di nekk avocat Karim Wade dafa am lu mu waxoon. Mm-hmm. dafa fàttali loo xam ne ci jamonoy nazi la amoon. Mm-hmm. benn euh, kii euh, catholique abbé bu ñëwoon di dal ci kawam mu ne leen bi ñuy dal ci kaw nit ñi ñuul ñi réagiruma Hmm. ndax dama jàpp ne du ma nit ku ñuul même bu ñuy dal ba ci protestant yi nga xam ne hmm. catholique lañ protesté wu ma dama taxaw jàpp ne bokk ma ak ñoom bi ñuy ñëw di dal sama kaw nag bi ma gestoo gisuma kenn ah. laata sax juif bi ñuy dal ci ñoom limaale na ko hmm. waaye bi ñuy dal ci kawam mooy wax euh, gisul kenn loolu mooy li wolof di wax boo seenee tan di yàpp sa bopp morom dawal dàq te xam ne sa bopp lay yàpp suñu maam ja Abu Kamara yàlla na ko yàlla yërëm moo ko waxoon Mm. loolu mooy li nga xam ne moo am ku jàpp ne Ousmane Sonko moom ngay xeexal xamoo li mm. xew mbir mi du Ousmane Sonko tey day moom bu ëllëgee keneen lay nekk bu ëllëgee keneen lay nekk lu tax ñu war koo faagaagal ci lu ñàkk fayda yi bu amee ku diffamé moromam Mame Mbaye moo moo moo diffamé moo yàq deru Ousmane Sonko wax ko mm. kàddu yu ñaaw kii néew ko sax da nga sàcc dañ la épinglé la ko wax néew ko da nga sàcc da nga luubal la ko wax luubal nag du da nga sàcc nit ki mën naa buñ la waxee luubal la nga luubal mën naa doon loo sàcc waaye la nga luubal mën naa doon loo xam ne sàccoo ko da ngaa seetaan ba dara am ci tàbbi ci loo xam ne nii demewut noonu mm. man nag kàlla li may wax mooy lakk wolof ni nga xam ne ni la wolof di waxee mbiram fi mu koy teg foofu laay waxee mm-hmm. boo ko xoolee ci nasaraan néew ko da nga sàcc soo ko jàppee ci wolof néew ko da nga sàcc kii mm. luubal nag mën naa sàcc ni ma koy faral di misaal sama mbokku Pastef bi ma leen di wax ne tey mi ngi mel ne rek ba ngeen ci métti Mbàkke bi ñu mm-hmm. yabaloon leen joxoon leen joxoon la yow benn oto dala jële leen Dakar dem ba Touba te boo demee Touba ngay def navette entre Ndindi ak Mbacke wala Daar mm-hmm. Rahman ak Mbacke ak yooyu yow nag mm-hmm. jox nañ la mille litres d'essence boo ñëwaatee nga rende compte ñu xam li ci des ah bi nga demee ba ngeen delluwaat Dakar ñu xool ko xam ne 200 litres am na 200 litres yu manqué ci 1000 litres yoo xam ne daal euh, gi xamuñ fu mu dem léegi yooyu nag yow nga daal di andiwu lay loolu buñ la ko waxee rek mooy loolu liñ la dénkoon mooy luubal nga ci mm-hmm. ndax defe woo ko liñ séentoon gisuñ ko loolu mooy luubal léegi nag yow c'est à de le démontrer yow à toi de le démontrer ni ñu ko waxee yaa ci war andi ay joyanti mm-hmm. wala andi ci ay ay lay yu am solo wala yu la setal mooy mm-hmm. nga ne ah man kat euh, du bi ngeen ma waxee dem leen Touba rek Mbàkke rek dew ma waaye damaa jaaree luga te ma jaaree Louga dafa waroon a am ñu adhéré ci parti bi ma waroon a dox diggante artères yi montagne ak kër euh, sëriñ ak wala nangam nangam ak kër bàyyi jiileeg yooyu mm-hmm. miinu ma Louga bu baax moo tax wala nga seeti woon góor gi ma Mar Jaaj sama sëriñ boobu yàlla ko yàlla yërëm suñ góor gu am solo googu mm-hmm. nga ne bi may dem gis naa fa ay militants yu doon def euh, taxawaay yu am solo yoo xam ne day yokkal parti bi dara moo tax mm-hmm. bàggante ya ma doon den def moo yóbbu deux cent litres yi léegi gii ñoon nañ la luubal waaye wane nga ne luubal am na waaye du loo sàcc da ko def ah. sax lu jariñ parti bi amaana loolu boo ko defoon sax boo ko deful woon sax junniy nit yi adhéré duñ adhéré. Mhm. léegi boobaa loolu yow bu ñu xamee ne luubal nga ba pare sax mais dañ la war a sax rek euh, jox récompense ci loolu. Mhm. waaye nag dànkaafu la ne la beneen yoon looy defati def ko nangam nangam loolu rek mooy luubal. Mhm. loolu la Sonko wax lu toll noonu. moo tax mbir mi dara ñore fi bañ koy màcc dañoo jàppoon ne am nañ ko te li muy gën a wane mooy procès bi ko doon njëkk a toppee muy bu Adji Sarr kon léegi wane nañ léegi ñu ngi bëgg a jàpp ci beneen ci. waaye li leen xañoon fuñ jàpp ndax li ñuy wax cooncul kuy daw moom boo ci jàppee bu bippoo yokki xelam rek fala lay bàyyi mm. bii moo gën a doy waar mm. comme daam ne ci Sonko man tam man nga nag am koo xam ne attekat boo xam ne tey man nga am attekat boo xam ne ñëw bañ a atte bañ a ci atteem tegal la waaye bu boobaa it askan wi ngay atte ci seen tur ñoo war a taxaw jóg bañ ko foofu la mm. nekk ci comment ndaka la ko askan wi war a bañ mooy bañ mu am ñuy demee noonu parce que problème bi mooy li ñu war a bañ sax mooy lu waa boobu di téye nit suñ la condamné lu ëpp un mois ci yenn peine yi ah. moo tegewut fen beneen bi mooy boo amee six mois avec sursis six mhm. mois un jour képp mën nga bañ a sa inéligibilité taxaw mhm. wala li ñuy wax penn pécuniaire plus de deux cent mille francs bu ñu la ko daanee ci wàllu xaalis maanaam boobu atte bu mandoo di te gis nga mhm. dictateur li ci gën a bon dafa am loo xam ne jamonoy yi yonent yàlla daawud la doon am yaakaar naa suma ma juumut ci ci ci ci yonent bi may wax mooy wala luut jamonoy lut la waa euh, dafa amoon benn waay boo xam ne jaay doole dafa am ba mu am ci njaboot goo xam ne boo ci bokkee lu la neex def mooy li fi tey rek mu am benn waay buy dox nja dem jàmburam am waa ji doon sànnanteeg uh, ay moromam daal daal di koy sànni xeer xeer yu dal ko toj bopp bi mm-hmm. kiñ toj bopp bi taxaw naqarul lu tax ngay toj sama bopp au lieu tey moom moom mu porté ji plainte comme tey lii Mame Mbaye Niang doxale diggam ak Sonko maanaam ki toj bopp jàmbur moo yóbbu ci yoon daal ne kii damaa toj boppam mu taxaw di ma di di naqar lu tax Mm. ñu daal di taxaw justice muy naqarlu waaw justice bi taxaw ne day atte quoi juge bi taxaw ah. vi la constitution sangam nangam nangam da nga doon jàll mu toj sa bopp te ni mu tojee sa bopp nii sax bu tojul woon sa bopp ni mu tojee sa bopp am na deret ju génn joo xam ne nii bu desoon sa bopp dañ la waroon a nàmpatal sinon dala doon teg feebar moo la ko génneel léegi yow daal alamaan nañ la deux cent cinquante mille mm-hmm. ah, waa ji toog ba mu yàgg xool ni muy def mu faru xeer toj bopp attekat bi till mm. ne ko boo ma fayee boole naa leen nga jox voilà l'injustice fi muy yegg. moo tax Sonko bi ñu koy laaj mu naan leen ci internet bi loolu pour man intelligence moo tax mu wax loolu. parce que ah. xam na ne lii ma toppe gi di sàkku li muy visé mooy. ñu toppi la la ëllëg recel des documents administratifs. am na am na ñuy wax ne loolu est-ce que doy na pour argument tamit. ci ah. internet bi laa ko gisee rek. déedéet loolu loolu waxin la. day hmm. doyut argument waaye layoo ba bésu layoo ba. Ah. waxam boobu day am lu muy jariñ. Ah. te Sonko ak loo mën a wax it la. même bu fekkee ne du du du du kii am na ci lu ci lu mu ci jot a jàng. kon xam na seen jargon yooyu xam na fi hmm. ñuy jëm. te loolu bi mu ko defee ñoom dañ cee njuum njuum gu rey gis nga léegi nag bu boobaa bis boo taxawee di toppee nit ñi recel des documents administratifs askan wi ñoo war a jóg xam ne seen euh, Prodac bu taxawee war a employé luy tolloog 138 000 emplois. Hmm. te amoo lu mat 3000 emplois war nañ laa laaj foo ko teg. kon rapport boobu ku ko teg classifié ko secret d'état hmm. yow da ngaa def li ñuy wax haute trahison hmm. kon dañoo fal njiitum réew moo xam ne daf nañu woon la woon day woon ni Sénégal da koy teg alalu réew mi dootuñ ko teg euh, ci njabootu ki jiite rek di buur di bummi di ci jàpp loolu la ñu Macky Sall waxoon ci dekkal ngor hmm. ak ñi mu ñëwee yoon yokkute la lam ñu waxoon yépp tey wan nañu li muy def ni wan nañu ne du dëgg lam ñu digoon dañoo wor wor googu mu ñu wor ñun ñu ko dénk nag kon ñun ñoo war a taxaw gën a taxaw tey foqartiwaat ba maanaam yoon di doxal yoon ku defati giraawaale muy ministre yi xoolal haute cour de justice foofu sax suñ nelawoo député yii ñu am muy yeewee wàllu ñëpp laa ciy boole rawatina waa yeewi seen mm-hmm. taxawaay des na mooy li ñu waroon mooy haute cour de justice waroon naa installé wu ba mu ngi ni installé wut ñuy daal dem jël rapport cour des comptes boo xam ne ay enquête kat ay lu ñutukat enquête nañ dem ba xam ne ñii dañoo sàcc ñii dañoo toje ñii dañoo def luñ ci warta def ñii dañ leen a war a joyanti pour ñu defarawaat ko noonu ñu andil la enquête boobu procureur taxaw daal di dénkaat affaire bi digg dig warut a déglu ñooñu ndaxte ña ña doon leen enquête ñoo leen gën a xarañ fuuf xamal leen ci wàllu koom-koom xam niñ ci mën a sàcce ak noonu fuuf ñu xëy jox ko dig loolu lañ warta nangu di nelawal askan wi hmm. nelawal askan wi nag procès Prodac bi maanaam mbay mambay ñaa bi daf ci bokk loolu hmm. mooy dëgg te waratuñoo nangu ñu di ñu foye di ko jaaree ci suñu ay justice wala di ko jaare suñu ay préfet wala suñu ay gouverneur wala suñu ay ay ay ay ay ay ay ay police wala hmm. suñu gendarmerie wala sax suñu ay sëriñ nelawal ki ñuy nelawal askan ah. dafa ëpp hmm. naga nga gisee attitude force de l'ordre yi démb bi euh, wala bërki démb bi Ousmane Sonko di euh, jóge ci tribunal bi jëm këram ni nga xam noonu lañ ko doon def ci yoon bi tamit. waaw loolu dafa am lu ci feeñ manque de professionalisme te man dama yàgg wax ne professionnalisme bi ñuy giñ suñuy takk dër. Hmm. Ah, am na de waaye bu dee bu ma sukkandikoo ci police man de euh, daje yi ma am ak police yëpp nga xam ne man la ñeel. Hmm. moo xam ñu téema di ma verbaliser wala nangam nangam yëpp manque de professionnalisme daf ci feeñ. Hmm. Sénégal nag bari lu ñuy wax suñu Euh, takk der yi naan dañoo xarañ ci côté enquête wala nangam ñu bari ñu ñàkk moom seen làmbin dañoo bari ci réew maanaam fen wala wax loo xam ne nii wóoru la wala yu demee noonu loolu képp a tax moo tax bu nit doon làqatu fii boo ñëwee na nga mën a defee ay enquête profonde yi ca yeneen dëkk ya sax soxlawoo pour def ko ci Sénégal pour teel a xam lan moo xew ak lan moo xew hmm. ñu def benn act boo xam ne nit a ngi dox waroo koo tee vaquer ay occupation parce que ordre nga fa nekk ordre public ordre public nag boo koy meñcee li ñu def désordre la parce que bi ñu génnee Sonko foofu même yóbbu ko toog nañu diir bu yàgg kenn jaarut foofu ah. tribunal sunk jógee na fa bu yàgg yàgg yàgg ña nga téye nit ña yore commerce foofu mënatuñoo jaay hmm. man mii rek keroog xaw nañ maa def loolu parce que yóbbu nañ Sonko lu yàgg hmm. ma ñëw sama kër fekk dañ ma tàggee sama maam ma ñëw war a jàdd euh, jàll barrage bu njëkk bi parce que dama waroon a gaare sama moto ci parking souterrain bi pour jël saak pour ñëw Touba. ñu hmm. ma ne ma doo jàll ma ne leen fii laa jëm ci kër gi ñu ne ma waaw booy jàll sa moto danga koy bàyyi fii mane waa ji yow li ma daal sax day dara obligé wu ma la woon ma wax la ko mais dinaa la ko wax man dama am dëj léegi te dama war dem Touba dama war a def ñeenti fan xam nga li may aj kii la woon alxames la woon mm. te yaa ngi ma gis wala fi ñu toll nii ñi ngi fii ñi ngi dimanche altine ca fajar war a dem wala dimanche ah. léegi man damaa waroon a bàyyi sama moto foofu dem ñibbisi mm. ndax lan Sonko la ñuy atte wala nangam ma kaas loolu bi ma ko kaasee ba sonn am ku ñëw ci ñoom daal ne bàyyi leen ko bi may dem mu mais ma mane ko waaw bon sens day dafa baax moom mi mm-hmm. ma bàyyi noonu moo walbikaat taxawaat sama kaw di ma gëdd di ma jànni ah da ngay noppi da da ngay nangam nangam ma ne ko sëñ bi mu ne ah ma ne ko man aw ma pour ñàkk a fayda sa kanam amu mm. ma gëdd su nekkee ne wàllu euh, fit mm. jàpp naa ne ëppoo ko su ne wàllu formation ci wàllu jànkonteeg dara mm. yàlla xam na ne formation bi ma def bu gënula tar bi nga defit euh, gënumaa tarle mhm. te li ngay defee rek moom li ngay defee nii rek war na ne yow matoo li nga doon parce que segg gi moom jarul muy segg segg lu naan segg laa mhm. bis bu jàppee bëy wi wala kéwal gi ñëpp danañ xam ne segg la kon taxaw di ma tëkkoog yooyu mënoo waxaw ba ma ragal la doog a mhm. continuer ñu ma sama jàmm ma dem pourtant mënoon na continuer dégénéré parce que dëgg man man bu fekkee ne mooy tax ñu faagaagal ma danañ ma faagaagal ma yegg ci buntu kër gi fekk journaliste yi taxawoon foofu ma def foofu benn interview ne leen jël leen ña nga ne fañ taxaw xam naa hmm. vidéo bu ku ko xool ci internet bi dina dina génn sa mbokk waa Sénégal média yi ñoom ñoo ko doon doon doon doon kii effectivement jaay doole googu la ñu war a ba pourtant ni mu dalee Ousmane Sonko dal na ma mën naa dal keneen nangam nangam man mënoon naa am ma ma parce que mas nañ ma ko def bis boo xam ne dama yegg sama booru kër fekk boobu dama nàndalu woon ma naan garabu biir buy daw Mm-hmm. muy daw sama biir ma war a dem kër ga def samay aajo. comme mm-hmm. ni ni mu mën a daal ñëpp. mais dañ ma téye foofu mu jigi dama tangal foofu seen kaw bañ bàyyi ma comme niñ ma bàyyee fii nii tey. mais est ce que mm-hmm. tey lu répété wu deux fois est ce que troisième fois bi muy am est ce que bu boobaa duñ ma ci mën a lor wala ma euh, ja euh, xaw ma taxaw ak ñoom di kii ba bañ ma sama bakkan man faa dem. li ma leen wax it muy fii tey Ousmane Sonko la ñuy àtte ça ne veut pas que maanaam nit ñi war ñoo vaquer seen i occupation. yi tey kii jaay forox caaya kii jaay mayga yéen a ngi ko tee jaay station bi kiy jaay mënul jaay comme ni mu waree euh, ki nga xam ne mi ngi ci car rapide bi war a liggéey ak ak ak ak tata bi war a liggéey kenn waru ci mën a liggéey. Hmm. yelente kon muy Macky Sall la ñuy àtte fii étant président de la république sax yéen bu dee professionnalisme bi leen di géej mi ngi ci yéen. da ngeen a war a taxaw xaddu damm nit ñuy vaquer seen occupation ñu àtte ko ba mu yeggal bu dee si vous êtes professionnel comme ni ñu koy waxee. effectivement voilà. waaw ba tey euh, ci niñ ko jëlee yóbbu ko këram dugal ko euh, ci seen oto ñoom par la force. Mhm. ak tamit wëlbatiku barricade këram ba nga xamee ne ci lendemain bi ay 10 heures lañ fa soog a jógee euh, état de surveillance boobu nga xam ne Ousmane Sonko nekkoon na ci jamono yooyu. Mhm. est-ce que Ousmane Sonko euh, tamit nekk na koo xam ne ku menaçante la ci ci réew mi bañ war koo mën a surveiller 24 heures sur 24 aussi. non xam naa bu amee ku muy menacé mooy saay-saay. maanaam ku ne ci nguur te la ngay def jibut loolu la war a ma ndax ku denc hmm. ci ronal du bëgg ku sëgg ku aji du bëgg ku téen loolu moo fa nekk benn hmm. mooy niñ ko jëlee ci otoom mooy fenn nañ la ne la da nga jaar ci tunnel bi dem sa yoon te dara du la ci fekk garanti yooyu ñu jox la ba nga nangu ko hmm. est-ce que ëllëg su lu mel noonu dalee Ousmane Sonko wala mu dal keneen ndax kooku dana ko nang bu fekkee ne am na mbooloo mu topp ci ginnaawam déedéet moo tax kilifa warul di fenn sa mm. doom sax soo koy nekkeek moom yonent bi sax day taree loolu maanaam ñëw ne ko danaa la indil sëré ci te fekk da koy nax wala noppil ma may la nangam te fekk naroo ko mm-hmm. kilifa day wax dëgg kilifa du fen waruta fen boobu waruta fen laa bëgg a wax mm-hmm. euh, yilif nit moom yomb na mm-hmm. waaye mat njiitit yombut loolu am mu jaar ci biir tunnel bi nga gazé fa ay ay ay nit ñu fa nekk te gaz lacrymogène ni muy tàkkee ci ndànd fay-fay mënul yem ak bu tàkkee ci biir tunnel mm. insécurité totale totale fulu total am fa Mm. loo xam ne mi nga fa am beneen bi mooy li ñuy wax violence de domicile am ci fekk nit parce que nit oto day daf ñuy servir comme domicile mm. fekk nit ci biir tey portom rek waroo koo tijji di ko jël bu fekkee ne amoo mandat mm. dam ne wala mandat d'arrêt wala yu demee noonu amut te loolu justice moo ko war a mën a def ak yu demee même bu tijji woon veeram sax waroo koo tijji ci biir te tijjulu la waatul buyoo tamit ab waa bi ha loolu mooy dëgg nga ñëw fëq veer bi li ñuy wax bavière kii éclaboursure vert yi ak yi mi ngi wàcc ci tànkam mi ngi wàcc ci kii mënoon na kii muy euh, noyyi yenn yu sew yoo xam ne dugg ci ki man koo faat te loolu maa ngi ñaan Ousmane Sonko mu gën a xool yaramam ba xam lan moo ci nekk ak lu ci nekkul. Hmm. ngeen génnee ko ci noonu te fekk amul woon lu justice wax même bi nga ko génnee noonu tey mënoon nga ko yoonal bul ko yóbbu këram. Hmm. jàddal ak moom commissariat euh, bu point E wala fenn. Hmm. téye ko fa ab diir même bu dee trois heures de temps pour rek ne serait-ce sax pour yoonal pour wane ne trouble à l'ordre public wala nangam nangam loolu lañ ko doon toppee wala nangam mais bu ko inspecteur bi xoolee wala bi commissaire xoolee xool na ne waruñ koo jàpp ba nañ ko mu jibbi këram foofu sax ngeen doon xaw a jaare ci yoon parce que bu waa boo tegee ne amoon nga information yi nit amul dana xaw jaare ci yoon nga hmm. dem teg ko ba pare defaat këram résidence surveillée wala yu demee noonu te loolu amul benn sens parce que amul benn justice bu la décerner te loolu justice moo koy wax ñun hmm. ci yoon rek lañ mën a jéggi pour di taxaw li ñuy wax moo tax ñi war a wax nañ wax liñ war a wax. Hmm. du ma wax nañ wax mais nañ wax liñ war a wax loolu mooy dëgg wala ñu noppi. waaw yaa ngi wax ñi wax nañ war a wax mais tamit euh, dégg nañ. Euh, ci Ousmane Sonko bokk euh, étiquette bi nga xam ne jamono bu nekk ñenn ñi ñu ngi ko koy tappal di wax ne nitu fitna la waral jamono yee amoon nañ manifestation yoo xam ne mu ngi doon xew fii ci diwaanu Mbàkke ba laalaale ci côté Touba sax hmm. am ay altercation ay wax yu ci jotoon na am. Hmm. ban jàngat nga def ci mbir moom bon xam naa ne bo am na ci ñoo xam ne moom li ma leen wax wax naa leen ko ak yu demee noonu. maas ak hmm. xaari busa geeg waa ji mes rek ñooñu moom bëgguma sax waxaat <laughs> ci seeni wax ndax jaruñ ko hmm. ndax xas nañ leen a classifié amatuñ benn crédibilité te nag nañ moytu Macky Sall. c'est pas pour rien mu taxawoon ne joyal ne sëriñ si ay citoyen lañ comme ñëpp. mais mi ngi leen bëgg a jëlee sax ci garaatu citoyen gën leen a wàcce mm. ndax ci yenn mbir pratique ak yi nga xam ne moom la waa këram sañ a wax mm-hmm. wala moom jëfinam te su may wax jëfinam sëñ Mountakha étant vice xalif euh, ah. général tee nañ ko fii ba julli ji wut loolu mm. tey ku jàppee nit ne du dara euh, ña taxaw fee di ay ministre wala ay ñuy directeur ñoo ko ab gëdd kooku rek a ko mën a def parce que bu fekkoon ministre diwa ñëw taxaw foofu policiers yi duñu la téye noonu kon buñu sañ mun taxa kon tey dama jàpp ne am na lu ñuy wane dafay dëggal rek kàddu Macky mm. Sall gam doon njëkk a wax mm. waaye ci biiri wax mooy di jëfloo ñoo xam ne tey ñu ñu war ñu ñuy topp lañ nga xam ne dañoo am crédibilité am mbooloo di leen déglu ndax sëtoo giñ sëtoo ci yoon wi wala ndax liñ leen dénk kàddu wala ndax liñ leen jox euh, teraanga tel wala daal ñi ngi tudd leen di leen tudd suñ sëriñ su baax si loolu tax mu leen def loo mbir yoo xam ne ni day tax nit ñi weddi leen ak yu demee noonu ndax nag dafa lu sëñ Abdoulaye waxoon maanaam boo doon dem ci yàlla ka ñëw maanaam nga am grade bi bañ xam ko tamiy dëgg boo waxee loo xam ne nii du dëgg wala lu ñaan danañ ko taxaw weddi foofu la nit ñi nekk nit ñi hmm. nag sëñ tubaa daf leen a tinki xat fakk kabla jooju daf leen a hmm. tinki ba pare kon duñ nanguwaat keneen di leen tënk moo xam nguur wala nga hmm. ñëw sa sëtoo ci sëñ bi wala nga doon mbokkam wala nga doon koo xam ne ni da ngay woote ci yoon yi bañ nangul la ko hmm. dañuy lànk ndax hmm. sëñ bi dafa am lu mu fekkoon fii tey muy ci jamonoy wuur yi te gis nga suñ buur yi bi ñu fi nekkee démocratie ci lañ tegee woon de nit ñi dañ leen a nanguloon ñu nekk ay buur dama lay wax rek ci jolof bi ñu demee ba ku ñuy wax lelli kuli fàkk ñëw fa en mille 1549 boobu ñëw di jaay doole ay gone yu ndaw tey ñoo xam ne ay ñaar fukki at la ñu am ay fukki at ak juróom-ñeent ñoo damm moomeel gi kajoor génn ci jolof te kajoor dafa nangu loon jolof ñu jël ku ñuy wax laman de fu njoogu mu nekkaloon jolof ca kajoor waaye jëloon ku ñuy wax ñoxor euh, njaay moom it mu nekkaloon ko ci bawal maanaam nekkoon comme ay genre province ñu daan jël di di di di dajale addiye yi wala di dajale galag yi ak yooyu fa kajoor di ko indil buur fi mu nekk ñëpp di ko def ndax dañ leen a nangul ndax jàpp nañ ne moom moo jiite ak yu demee noonu loolu nag bi mu demee ba am buur bu fuuy buy commencé di def yi fi euh, naaw feq wala dara ay gone yi ndaw yoo xam ne ñoo indi woon mbir mi ñoom ñoo dem sotti foofu këm bi suuf ya ñu yóbbu woon ak xànc gu yi te ña cay bawal bawal ña cay kajoor kajoor këm bi suuf yaag yeneen taranga yim da woon tegal ko foofu dem di ñibbi ñi ñuy wax waa kër ñàkk jàmm jaxase leen ak buur bi buur bi génnee ñu ne ko waxuñu la lii rek waaye dañ cee teg saaga la mu taxaw pour pour pour leen ñu taxaw jàmmaarloog moom ba ko ca la nit rëppatal ñëw fekk laman dëcc fu njoogu fi nekkoon ne gone yi dam rey nañ buur ba ba mu ko waxee loolu moom mu daal di wax kii nag ne ko ah euh, dajale waa kajoor gépp ne leen moomeel gi doxoon suñu diggante ak jolof tey gone yi dammal nañu ko muy tiitaru dammeel muy damm ak moomeel kon hmm. loolu daf fi yàgg a nekk bi ñu demee it ba buur yi kajoor daal di taxaw fal ay dammeelam dammeel yi di fi nekk dem bañ commencé gis ay jaay dooleeg yooyu ak l'arrivée tubaab tubaab bi ci biir yooyu te tubaab yi bu ñu fekkoon ca nañ meloon ci jalof jolof amoon doole yëpp doole jooju yëpp jàppoon naa ne tubaab yi duñ ñu mën a dugg mais buur bu saay-saay bu réew bu xamadi bu fuuy boobu ñuy wax léegi ku de fàkk tax na ba jolof tasaaroo kenn ku nekk téye la nga moom nit ñi hmm. buñ téye li moom daal dispersé wu bu tubaab bi ñëwee ci lañ ñuy mën a fexeel boo xoolee Lat Joor sax bi ñu koy topp doole ji ko yàlla mayoon da mën a réplier wu mën a dem jolof mën a dem saalu mën a dem siin mën a dem mën a dem tubaab bi dafa dem ba sant ña cay jolof-jolof yi ne leen bu fi duggatee tere leen ko mu dugg fi bi mu demee ba am loolu te ku mel ni tey ñu koy wax euh, euh, Albury bi mu bañee dañoo jaar ci ay député mu fii tubaab bi jaar maam ay jàmborom jàmbor yi jolof yi daal koy forcer wañ loxoom à que pour mu nangul tubaab bi bi mu nangulee ci lañ tañ ci Lat Joor ba Joor daanu ci déqale ni nga mel nii bi ñu hmm. yegsee nag ci la sëriñ si tàmbulee jóg di am doole ku mel ni sëñ Tuubaa suñu la nga xam ne tey Afrique gépp koy sagoo danga gis ñoo xam ne du ñuy jullit sax mais dañuy considérer seen bopp comme ay murit ñoo xam ne ay murit nga xam tey ku mel ni Cheikh nga xam ne murit la woon Cheikh Anta euh, Diop laay wax murit la woon di taalibe moom it diaboliser nañ ko ci yoon wi ba am ñoo xam dañ koo jàppee woon ne kuy wooteeg yonent te moom sëñ Tuuba taalibe Sëriñ Tuuba la ñëpp xam ko tey hmm. bari nañ te moom ñàkk caay-caay politique tax na li ñu waroon a jariñ jariñuñ ko ñu diaboliser ko gàccaal ko ak yi demee noonu loolu noonu la ñu war a taxaw bañ xam ne sëñ Touba daf ñoo tinki waaye tey euh, euh, nguur yëpp parce que nguur tamit noonu lay demee fu nekk wala na leen a ba xam nañuy doxale bu xamee ni ñuy doxale yam ca rek jëmee ko ci côté bu baax bi waaye nguur yi ñu tàmbalee gis mii dañuy gis dañuy infiltrer kër sëñ bi ba seen RG yooyu sax joxatuñ leen rek information waaye dañuy manipuler sax ñooñu di leen di leen jox information pour di manipuler information parce que fan yële bi nga gisee sëñ boobu dem Poroxaan muy sëñ Abdourahmane ay nit mën a taxaw di ci di ko di ci commenté ci vidéo bi dugal ko ci groupe APR yi bañ naan sëñ bi ñëw na fi lii la waxante kee nee ko mu bàyyi nangam te dara du ci dëgg nit ñi ne pat tey ñii di taxaw tey di wax tey loolu la ñu waroon a gën a ñaawlu muy ñu waxal sëñ Muntaxa loo xam ne du dëgg dugg ci yoon waxal ko xool barki démb li Moustapha wax ne sëñ Muntaxa daa am ay rakkam yoo xam ne dañ koy rëkk te nit ñëpp xam nañ ne yoonu murid toppaate moo fi nekk mais nag tey am na ci ñoo xam ne la sëñ Abdou Alaaj Baara waxoon naña moomoon dem nañ ñi bokk fi des ñi bokk buñ taxawee tamit des fi ñëpp daal di leen xam ci teraanga suturaal seen mag euh, def ko kii sëñ Muntaxa damay wax ne waxuma yoonu murit rek waaye Sénégal gépp ñi dul jullit sax dañoo am cofeel ci moom kilifa gi mu doon ñëpp dañ ko koo nangul léegi nag bu ñu demee bay manipuler ay nit ñuy def ay jëf yu ñaaw dana am ñu mu naqari ñooñu du dañoo naqari wala dañoo contre yoon wala nangam ànd ak loolu yëpp koo ci waxal tey sëñ Tuubaa ko gënal bakkanam mooy ña ca nekk euh, Pastef te doon ay murit ña nekk APR te doon ay murit na nekk pas euh, PDS te doon ay murit ñooñu ñëpp tey sëñ bee leen gënal seen bakkan waaye yow bu fekkee ne yow nguur ay euh, alali nguur wala suufu nguur su mu lay jox wala këri nguur yu mu lay jox xoolal jamono yele te gis nga loolu saa yoo gisee benn séddale bu ki bu gaa yi bëgg a def rek dañuy fexe ba jox ci ab sëriñ bu ko defee xam ne nit ñi dañoo am faiblesse su sëriñ si bu ko defee kenn du ko lëñ bët def nañ ko sëñ Sidi Muxtaar suuf suñuy dagg su baree bari daal na jox nañ ko ci temps de hectare il a fallu que Atepa Goudiaby moo ko wax de ñëwal boppam ba ci sëñ Sidi Muxtaar ne ko de man damaa dégg suuf suñu la jox soo xam ne li fi ñu ko joxee waruñ ko foo joxe mu ne du moom dañ ko koo waxal mu ne ko ah ñu ngi yàq sa der nangam nag te am na nit ñoo xam ne pare woon nañoo faaj faajoo séddalee suuf soos te manoon a jege sëriñ boobu ak yu demee noonu muy demee nag mm-hmm. ni mu mën a ne méttee Pierre Atepa Goudiaby ba muy mën a ñëw di ko wax sëñ bi a ne taalibe laa rek mais noonu la gën a mën a mettee ki nga xam ne ci mbàkkee la bokk te ëllëg tey yoon wi mën naa dem ba tege ci loxoom noonu la mel wala koo xam ne sax sëtoo na ci wala koo xam ne ab seex la ci kon mbir mi fu mu mettee war nañ koo xam gis nga maa ngi déglu sëñ bu baax bi suñ porte parole bu baax boobu sànq mu évoqué benn aaya boobu suñ borom di wax ina aradna amanata ala samawati wal ardi wa jibaala fa abay an an mil na nahaa jooju loolu mu ci wax aaya boobu kay lu leer la xanaa mbir moom li wolof wax rek euh, buum moom day am ñaari cat saxaar TRV daa am ñaari bopp boo waxee bopp bi jëm ndeyjoor war nga wax bopp bi jëm càmmoñ nag mm. wax dëgg yàlla wegeel rek lañ la mën a man nag bokk ci ñii wax naan dañuy saaga kii wala kaa nit nag mën naa wax dëgg bon wax sa moroom sa ku mag wala sa kilifa dëgg sax mën nañ koo tibee euh, ay jàppee saaga waaye nag ñun danañ jéem a wàccoon wàccoog teggin ya mu war lu tee nag ñu wax dëgg ndax nit ñi dañuy jaawale ko wax lu la naqari ak ki la tooñ nit mën nga kaa wax lu ko naqari te fekk tooñoo ko man damaa jàpp ne lii dama cee bokk ni ñëpp moo tax ma ciy wax bu ma sañoon ñëppay waggar sunu sëriñ si te hmm. gisuma ay benn benn yoo xam ne ña nga ca bitim réew di saaga ñooñu mënut a tax ma jàpp ay noonu man nag du ma saaga dinaa wax dinaa wàccantoo kii man aaya boobu suñu boroom bi mu toggee jëf maanaam jox yan bi montagne yi ak suuf seeg asamaan si ñoom ñëpp ñu daal di wane ne moo sax ñu gàntal ndax ku mel ni yàlla doo ko mën a gàntal ci baatu wolof mooy ñu wane ne mënuñu ko mm-hmm. nuñu ko daf ko jox doomu aadama mu nangu ko mm-hmm. jox googu ñu la ko nangu nag mënul tekki rek nga wax ñu jaamu yàlla wala nangam àdduna si su doon yàlla daa bëgg ku ko jaamul yàlla rek tey malaaka yi am na ñoo xam ne su sujjóot rek lañuy def mbàkke bàlla mm-hmm. am na malaaka yoo xam ne nii Euh, rukon rek la ñuy def am na malaaka yoo xam ne taxaw rek di sàbbaal seeni borom la ñuy def ñu nun nag ay doomu aadama lañ mhm. yàlla daf ñoo wàcce ci kaw suuf lii ñuy def fii politique bii ñuy wax tey ba di ko diaboliser gisuma lu ko gën di jaamu yàlla ku mhm. nekk da nga koy defee ci côté bu nekk rek ci diine ji ak yi demee noonu te bari na nag koo xam ne nii tey su Macky Sall ñëwee mu waneel la ak bëgg Macky sàll wan ko ne ko ah sëñ bi dalaa junjoon am na ñoo xam ne sax dañ ciy dem yegg bay wax ne sax ku ko contre sax yàlla nga ko ndax yàllaa ko fi def wala nangam nag waaye yàlla mi ko fi fal moom xanaa yàlla moom it moo fal fii ay gone yu mel ni man alaw la bay bëgg a dee contre Macky Sall respecté leen yàlla jooju tamit mhm. fal euh, sàkk ma def ma may opposé ba mhm. pare te teewul nag may taalibeb Serigne Touba nit ñi Ousmane Sonko Macky Sall bala nga ko doon xam tey nit ñi mu wóor leen ne Ousmane Sonko mhm. euh, day contre sëñ bi lii kon ñuy def tey ñoo koy njëkk sëqatoo fuuf caxat-caxatee waxuma la leneen ak leneen nit ñi dañoo yegg ci ràññee sëñ tubaab bi muy jàngale dafa ñëw tinki nit ñi bëgg ne xam-xam topput weex mbaa ñuul tey bu fekkoon ne tey Iran ñuy wax tey ay kilifa diine ñoo fa jóg dakkal mbir ma fa amoon la fa mënoon a am muy ak ngóor jigéen la fa mënoon a am teg fa état islamique wala nangam nangam mënuñu nag bu nit ñëwee ne citoyen ordinaire war a mën a ñëw taxaw tey sëñ Bass mii di wax tey Mbàkke Bàll na ne Touba kenn waru fee politique te muy dëgg waaye ana 16 APR yi nekk ci biir dëkk bi. effectivement 16 politique yi fi nekk yëpp ay APR lañ. Mhm. Macky Sall ñëw na di inaugurer ab ab l'hôpital sëñ bi yaa ngi toog. Mhm. te dañoo tere ko fi politique. nee na maanaam moom mënut a ñàkk politique tey parce que mbir mi niñ ko wat taxaw politique foofu noonu tey su fekkoon ne dañoo yemale lépp fi ko Macky Sall defee Macky Sall kilifa la nag ndax suñu borom ay def la waaye yilifut sëñ bi nag. bu mhm. ñëwee biir Touba kon tey baatu sëñ bi tey. Macky Sall da ko waroon a waggar bis boobu te it bu ko waggarul da ngeen ko waroon a wañ loxo moom mu waggar ko ci saasi boobu man jàpp naa ne sëñ Bas su jëloon ngoliir gi ne aal ma foofu ne ko nag ah nun nag duñ la may nga politique ko fii ginnaaw mënoo ñàkk politique bàyyil ba dem Mbàkke wala ba ñu bi taxawee ko fa réponse boobu yombut hmm. waaye bis boobu sëñ Bas li Macky la wax noonu jógul gisuma lum ci wax wala bi mu weesoo gisuma tey ni muy ñaawloo mbir moom wala yu demee noonu taxaw wax ko beneen bi mooy li fi xew barki démb Mbàkke ay Aysa wax dëgg yàlla am ki fa ñëwoon gane si leen day bi mu ñëwee laaj na war ma bi biñ ko ko waxee euh, defante na ko wàccoo na ak war yi ba muy dem Mbàkke dafa teggi ca xàll weneen wa dem taxaw nit ñi nag du ñu ànd fi ñuy nekk ki njëkk a taal gaze lacrymogène biir tuubaa kooku ngeen war a waxal hmm. nit boo koy daan topp ba mu dugg fenn bi sax war nga ko mën a waggar loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg Touba day këru rawukaay du rawukaayu saay-saay nag ba lu neex def wala nangam nangam gis nga information yi nga xam ne bu nit nekkatee noppi sëñ bi daal di sëñ bi nangam nangam damaa yaakaar ne ak njàccaar ci moom la war a gën a wér hmm. wax dëgg yàlla parce que tey war na mën a xam kiy mini manipuler wala kiy nangam nangam man damay nangul jàppal ngant ñenn ñi ne xaj na dañ leen a trompé nettali leen mbir mu xew moo xam ne waxee leen ko niñ leen ko war a waxee waaye nit nag war ngaa fexe ba yow nag comme que da ngay mën a wax ci turu yoon wi ak yu demee noonu ña nga xam ne ñoo njëkk a tooñ nga taxaw wax ak ñoom barki démb lii Moustapha Diakhaté wax tey man doon naa séntu bi sëñ bi waxit bàyyi ko xel daal ne dafa am ay rakkam yu koy rëkk man gisuma fii fenn kuy rëkk hmm. sëñ mun Mountakha déedéet sëñ Mountakha hmm. waxuma la rakkam yu baax yii topp ko ndax baaxam gii wala yan bii nga xam ne moom la yanul sëñ Touba waaye Sénégal ña cay chrétien sax dañoo nangul sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa da ngay gis koo xam ne chrétien la sax di ko estati ndax lu baax rek la woote kon tey bu Moustapha Jaxate sañee jël kàddu yooyu waroon ngeen ko yóbbu ci yoon wala ngeen woo ko fan la ko teg gisuma genn kilifa gu setoo ci kii di jéem a contrecarrer sëñ Muntaxa wala nangam am na loo xam ne nag la kenn dul nangu ni mu ma mën a naqaree la may naqaree nit nekk ci sëñ bi jege sëñ bi sañ faa nekkal Macky sàll nit ñëw dugg fa gan gu mu mën a nekk na jóge Amérique na jóge feneen nga filmer ko ba pare ñu jékki-jékki gis ko ci groupe APR yi ñu koy tas di ko commentaire loolu lañ ñeen ñi bañ bañ gi ñu koy bañ di ko reeteer nag ñu leen di giñ naan dañuy xeex yoon week dañuy nangam ak nangam koo xam ne da ngeen daan jóg ñu koy giñ naan ko bëggul murit ak bëggul yoon wi ñu koy gis tey mu ne am na sëriñ buñ ko gisee fu muy mën a dem fokk mbaxanaam wàcc ci suuf jox la wàcc waay waay waay kooku bu ñu nangu kenn bonalal ñu ko ni nga xamee noonu lañ ñu doon jéema a diaboliser Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop nag daa ñàkkoon caay-caay politique caay-caay politique koy wax du lu bon caay-caay mooy li Sonko am mooy li am Cheikh Anta ñàkk caay-caay politique moo tax yenn réponse yi mënu ko woon a joxe ak jàppoon ne gars yi duñu yegg ak moom fenn fi ñu koy giñ ak yeneen taag ay naan nangam ak nangam yu demee noonu tey loolu nit ñi xam fii nit ñi jàngee lañ jàngee nit ñëpp man de ku ma gën a dégg français ma ne la ndokk ba ma gën a dégg arab moo ne la ndokk waaye wolof yi may wax nii ku ma ko gënta dégg fii gënoo ma koo dégg hmm. te ci laay waxe te yoonu murit na ku ko wax ay tegginam waxi wolof xam nga man dafa am loo xam ne ba tey ibaado yi ñuy wax naan nangam ak nangam Ahmed Lo mii ce hmm. rien contre moom li mu mën a fiisoo ci suuf wala organisation ci jamonoy Macky Sall ah. Abdoulaye Wade Abdou Diouf Senghor mosu ko fee jox benn kilifa goo xam ne nii ci salafiste lañ lay wax wala wala wala wala wala ibaadu wala nangam nangam. Mm. pourtant suuf joxuñ ko bu weesoo daal lu toll noonu ca Senghor lañ ko gëj a gisee loo xam ne daf ko jëloon joxoon l'église te si Sidy Lamine masoon ko fee wax mu naroon a doon ay bëggoon buur yi sarax mooy li nga xam ne boo tàmbalee fi ñuy wax ICAO muy université euh, privée catholique boobu ba ci ay Daniel Brottier suuf soosu yëpp nekk biir Ndakaaru ba ci cathédrale beeg lu toll noonu. moom lañ ko fi jox ginnaaw bi daal Abdoulaye lañ fi gisaat mu jox fi nit te lim ko jox dafa fekk benn litige foncier boo xam ne moo doon am fi ñuy wax jumaay murit mu amoon ca diggante fi ñuy wax jàkkoy tukulóor yii nga xam ne fa lañ doon njëkk a duggee ci jamonoy sëñ Abdoulaye yi doon fa jullee biñ fay jullee ñoom ñu taxaw di ko xëccoog murit yi biñ yegsee sëñ Abdoulaye mu wax murit yi ñaata yoon ngeen fay jullee ñu ne dañ fay jullee it mu ne ñii kañ ak kañ lañ fay jullee ñooy ko julli juróom mu ne ko kon bàyyi leen ko ñëw ci gën yey ci lañ ko bàyyee dem guy murit fi ñu dem noonu dem ba mu yàgg ñoom ak ñi ñuy wax yenn xaajar yi ñu am ceeg réeroo ñi ne ñoo moom fii ñu ne moom fii ci la Abdoulaye Wade ne nañ leen ko bàyyee daal di leen jox fii loolu de gisaan nañ suuf soosu waaye lu ni toll mm. liñ jox Ahmed Lo mm. Macky Sall de moom nàkkal na Ahmed ba mu doyal gisuma beneen sëriñ bu mu jox wala benn organisation bu mu jox loolu mm. gis naa de ibaadu sax yoo xam ne nii tey nangul gi songoon nangul tey yoonu murit ñu gis ko jàpp ne noonu la demee tey moom lañ ko commencé di bañee ba ñu bëri dañ ci ñoom waaye donte nag nit ñi ñi ci ràññee bari nañ du ne nit ñi la sëñ lu waxoon rek borom màggal gi mm-hmm. ne li ñuy tànn mooy président de la république xooluñu ki ñuy euh, tuddal doom wala ku ñuy nangam ak nangam ci ku ñuy jiiteel juma wala demee noonu kon loolu ndegam dafa am kon nit ñi bu ko neexee nekk loolu léegi nag di jël sëñ Tuubaa naan nit ñi dañ koo commencé défier di ko bàyyi nangam man dama jàpp ne loolu sax mooy wàll wàcc wàccee daraja sëñ tubaa nit ñi niñ meloon ci sëñ tubaa tey la gën a bari te muy dëgg kon mm. sonko mii tey bu amee ku ci bénéfice sax dama naan yoonu murit la mm. parce que nag tey li ñu gis ci wareefu yelleefi murit yëpp mi ngi koy wàccoo di leen ko jox muy yegg seeg seen kilifa du toogandoog ñoom ci kaw foqaleen ba xana wàcc ci suuf su ñëwee jëlab jukki jàng ko ci nangam ci xasida dem dugg bi ko nit ñi toppee tàmbalee wax mu ne leen nañ wax jërëjëf sëñ Touba. Hmm. lii kan moo sagal sëñ Touba ki duggee dàllam ci jumaa ji nag hmm. yooyu yëpp am fi ah. saa yu ñuy wax bëgguñu wax gis nga hmm. nun nag dëgg gi moom dañ koy wax donte dañuy faatu saagawuñu kenn xasuñu kenn waaye dëgg nag bu fekkee ne mooy ay saaga ay saagakat lañu waaw xam na moom du kaani mm-hmm. waaye kooko tuuf mu toxal ñu mm-hmm. fi ñu toll nii nag moom li may faral di wax rek euh, mbir mi moom nañ jël sëñ rek man mii tey xaj na bu ma amoon terrain yu bari mm-hmm. niñ koy waxee ah. jar na su fekkee ne maanaam daf ma nar a indil problème naa ko jaay rek bu dee këru ndakaaru moom xaj na euh, moom bu jaree ñaar fukki junni bu ëllëgee du jar euh, du jar fukki junni de day jaraat ñaar fukki junne ak juróom wala mu jar ñaar fukki junne ak juróom benn ah. naa ko jaay day gën a am day gën a am valeur naa ko jaay ñëwaat def ko ci liggéey sëñ Touba rek aussi simple jarul rëcc <laughs> waaw xam naa ne <laughs> na looy cax foofu ci ci euh, mujjantal bi waaye dafa am jeneen wax joo xam ne euh, sëñ Abdou Karim wax na ko hmm. ay wolof yoo xam ne peut-être euh, yaa ñu koy gën a mën a firi ah. waxi sëñ Abdou Karim ji nga jeexalaale ko nga tojal ñu ko comme ni mu ko waxee. waxi sëñ Abdou Karim ah. moom dama ko rafetlu. ndax sëñ ah. Abdou Karim dafa doxal ak maandu moom. ba ah. jeex tàkk. Mm-hmm. daal nun mag ñi. waaw ki ñun mag mën a àndal makki lañ mën a àndal wax na dëgg yéen gone yi nag nangam gis nga loolu lu ko gën a doon démocratie. Mm. gisuma ko man sëñ Abdou Karim wax dëgg yàlla jërëjëf Mbacke Balla. gis nga wax li ñuy wax rek gis nga bu tegoo kum neex farak ku la neex mais li bon mooy ngay défendre nekk kaa di jaabul moo bon wala nga bëgg a jël nit ñi bëgg leen a yéefarloo wala nga defloo ne dañoo bañ sëñ bi te fekk mm-hmm. ñu bëgg sëñ yow bu fekkee am mbooloo dafa nekk waxuñu leen damaa bañ sëñ bi mm-hmm. nga ne leen ñoom àndatuñoo ak bi yow yaa ngi wàññi mbooloom sëñ bi di Anta Diop li nga xam ne moo ko topp tey ci Afrique nga xam ne boo waxoon tey ñu ne du ma jullit waaye murid laa wala ñeneen ñoo xam ne waxuma Cheikh Anta Diop sax même ñoom sëñ Touba lañ jël gis nga nañu bàyyi li ñuy bañ jël yoonu murit mm-hmm. jàppe leen ay dof am na gone gu ñuy wax kajaa caam ab kémit la kémit mooy ñi nga xam ne bon ñi nga xam ne nee nañ la suñu maam ya daan kii ci la ñuy jaamoo lislaam diine la boo xam ne daf fee dugg dañ ko koo imposé dañoo war a dellu di jaamu ay xàmbu di jaamu ay loolu ñoom la Mm-hmm. wala ñoo comme ay voodoo comme ci benee ak yu dem loolu ñoom la mais xale boobu bi mu waxee loolu damaa gis benn mbokk boo xam ne mbokkum taalibe tijaan la mm-hmm. ñu fekkante woon ci benn euh, application bu ñuy wax Clubhouse ah. defoon na benn sortie sax ci tele yi daal koy wax mais far yàlla natt ko ñu daje ci application Clubhouse ma xàmmee ko mu ne ma mu ne bi muy wax ak euh, public bi foofu mu ne leen xale bi daa saaga suñ mag ñi ñu ne ko ñan la sax mu ne daa saaga sëñ Touba saaga maam El Hadj Malick saaga maam eh, Cheikh Omar Foutiyu Taal donte ne nag ku saaga Cheikh Omar Foutiyu pour man saaga nga sëñ Touba mais nag nit nañ koy waxal li mu wax xale bi muy wax ba yegg ci sëñ Touba dane mennam sëñ Touba moom du julit de xale bi nee na nee na daa daa daa tubbi maanaam nekkatul julit parce que nee na li ñuy defa tax waaye nee na sëñ Touba képp la nangul parce que moom jëlul jaasi dem di songu ay ay moromu africain woon kon kooku bu fekkee ne da ngaa sa xeex la muy def du yoon yomb naa combat waxal ak état comme mi ngi France ñu fexe ba mu ñëw wala nangam nangam yooyu bu la neexee soo ko mënul mais jël ko di ko diaboliser naan dafa saaga sëñ Touba pour jàppee mu muridi ay dof ñu jóg di la xeexal ñun xeexu xel ci lañ nekk sëñ Touba non violence la woote taxaw résistance la woote woon ak yi demee fii kon waruñoo nangu kenn di ñu manipuler mm-hmm. manipuler ñu nag ni ñu koy bañalee mm-hmm. keneen koo xam ne bokkoo ci yoon wi nu ko raw fuuf lañ ko war a bañale ku nekk ci yoon wi wala ñu lay tudd di dund sëñ bi ba pare nga di ko ko taxawale di manipuler nit ñi kooku lañ ko war a gën a kii gis nga nit ñi sëñ Touba dong lañ gëm sëñ Touba dong lañ gëm sëñ Touba dong lañ gëm su may wax gëm nag mooy gëmu uh-huh. wóolu ko doyloo ne doonay yonent bi la ndax dafa am gëm baatu gëm sa bopp bi ñuy wax nii boo xam ne dafay faral di ñëw di ñëwaat hmm. yàlla dañ koy bëgg yonent bi dañ koy bëgg suñu ndey dañ koy dañ leen di bëgg suñu bàyyi dañ leeni bëgg sëriñ bi dañ koy bëgg suñuy soxnaak suñuy nàngam dañ leen di bëgg waaye mbëggeel gi ngay bëgg yàlla danga koy gëm teg ci mooy tax nga ne yonent bi dañ koy nangul maanaam nangul gi koy nangul mooy gëm ne yàllaa ko yónni maanaam mais dafa ñëw ne ndawal yàlla laa xam nga nit mën na laa ñëw ne ah diwoo ma yónni li muy wax gëmoo ko kon yonent bi la muy wax moom nga gëm pas en que tel maanaam Muhammad nga gëm wala dara déedéet rasulullah nga gëm maanaam yan biñ ko yan loolu nga ko nangul sëñ Tuubaa it yan bi ko suñ borom jox mu wutu fii nekk jëwriñu yonente bi loolu lañ ko gëmee loolu lañ ko gëmal moom lañ ko nangul pour suñu mbokk ibaadu yi nga xam ne buñ ñëwee di wax waxu ay yaakaar ay gëm nit wala yu demee noonu parce que dafa am loo xam ne gis nga ci ci wolof moom dafa noppale te gis nga suñ làkk yi suñ ko indi woon di ko waxee dafa am Baay Faalu Siise dafa mas a fekk benn imam buy furi RTS ku ñuy wax Abdou Aziz Kebe bi muy wax waxulul xaq min rabbikum aaya jooju suratul kahfi muy ñaar fukkeelu aaya ak juróom-ñeent mu ne waxulul xaq min rabbikum fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur Abdou Aziz Kebe tekkee ko ku mu neex gëm mu ne mu ñëw ne leen kii tekki lii képp ku juum ba nar cee dem safara ndax lii moo moo la ko teg bu boobaa wolof dafa mat wolof daa am euh, neex am soob am yebu da nga sax nit di wax ak yow naan bu la soob kenn du ko askanale nit mm-hmm. yàlla la yàllaa ko jagoo ndax moo am droit mm-hmm. woppal wala mu rey mm-hmm. wala mu nàngal dama koy faral di wax ma ne ku mel ni Bertrand Bokandé ma koy nuyu bu baax liggéey bu rafet lay def moo jiite prisonniers yi ci Sénégal yëpp moom bu fekkoon tey dañ ko jox garaat mu sañ ku déconné ci kaso bi mu rey la maanaam yàlla defal ko grade boobu wala ñun ñu defal ko grade boobu mu koy defee kooku kon sañ nañ ko wax ne bu soobee Bokandé waaw waaye ki nga xam ne moom mooy euh, directeur euh, gare euh, pénitencier bu bu bu rëbës wala bu mag bu mba bu jurbel bi wala yu demee noonu mm. kooku neex lañ koy wax mm. baatu neex bi mu firee loolu nga koy mën a wax ndax hmm. moom su ko neexee waa ji tëdd heure su ko neexee waaji kooku baatu neex ngay wax. Hmm. waaye baatu prisonnier bi tey prisonnier tey ni mu mel Sénégal bu demoon tey ba taxaw taxawaayu jaam nga xam ne sañ nañ koo rey sañ nañ koo nangam nangam bu bokkaane ne nañ ko rey ñu rey ko nangam nangam kooku doo ko wax baatu neex baatu yabu nga koy wax. maanaam boo yabu ma ne daal plateau bii daal tere naa fi ku fi saaga nekk kum neex saaga kum neex bàyyi yow kay tere naa la ba pare waaye digal naa la waaye ku yabu la wolof di wax boo koy wàccee ci baatu mooy ku yabu def ku yabu baay waaye ay moo tax moo mu wax ne inaa axtat naa jooju gis nga ko mm-hmm. maanaam gis nga ko noonu mu demee nga xam ne kon ku yabu def ku yabu baay waaye ay ku ko ci def moo tax ah. wolo làkk wii ñu yor dafa gànjaru te yoonu murit bokk na ci yoon mi nga xam ne dafa lépp day Afrique mm. maanaam lislaam ji la jël ju set sell rek waaye nag jëlul culture arabe bi waaye nag dafa mel ni ñu tàmbali di defal ñii nga xam ne ñoo jàngi maas xaadim buso gi ak ñu ni mel ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ibaadu yi ñuy wax fii ak ñu ci baree baree bari seen jukko mooy dañ ñoo bëgg a indil culture arabe bi bëgg ñoo sonal boo xoolee yoonu murit dafa am yëre yoo xam ne ni ñoom lañ ko bàkkee fi ñu toll nii muy yëre sañ son yu boobu sañ abdoulat turki njaareem ak yu demee noonu waaye dem ba ci seeni wax ay jargon yu ñuy waxee ah, mm-hmm. baatu jëf jël baat yooyu nga xam ne dafay ñëw da ngay dégg amoon na suñ kippaango yi wolof yi sama benn mbokkum tiijaan ne ci ne ma yéen xanaa yéen kippaango gi jël ma ci suuf daal ne ma xanaa kippaango gi yëpp ay murid lañ <laughs> ma ne ko déedéet ma ne ko xam nga li tax ma ne ko baat yi ñu doon raasi ci mag ñi mooy fi nga koy gën a fekk ndax li ñu bind rek bàyyi la fi moom ngay gën a teg ak li nga xam ne moom la la say maam wax ci ah. baataan yi mooy vocabulaire ak yooyu hmm. ma ne ko waaye li ñu ci gën a noppal mooy ku mel ni sëñ Bay Jaxate wala sëñ Musaa Ka sëñ Musaa Ka am na fu mu naan lu ñu togg bar gi ne ko fuuf bar googu muy wax baatu bar xam nga mooy équipe hmm. mooy tey booy wax équipe football équipe ngay wax euh, bar buum gu rëy hmm. gis nga buum ay wëñ lañ dajale ak noonu ñu dajale da ngay gis ne mooy équipe moo tax bar googu muy wax te ñun dañ koo jàppoon buum ndegam day firi buum dañoo jàppoon laxasaay gi gars yi takk ak yooyu ndekete bar mooy équipe maanaam tey ñi daje ci daara ji ak yooyu mënatuñoo togg lu leen doy ak yu demee nga xam xeeti baat yooyu ci sëñ Moussa Ka ngay mën a jaar wala sëñ Bay Jaxate ak yu mel noonu wala ci yoonu murit ti ngay mën a jaar fekku ma ne ko noonu rek la demee hmm. moo tax te bu nit di exprimer wu rawatina te yoonu murit buy wax ak yow tey da ngay xam ne kii wolof lay wax ak yow yu leer hmm. nañ ak yooyu soxlawul hmm. bu jàngoon tey ba wannu lef jàngoon arab ba wannu lef tey ci ñi ngay gis sëñ Muntaxa tey ku ko gën a jàng ci ci dëkk bi kan moo ko gën a dégg arab waaye buy wax ak yow wolof yi wax lu leer naa ñi lay wax sëñ Cheikh Dar Rahman man mi nga xam ne moom a njëkk a beq ci ci ci ci wolof Mm. buy wax ak yow baatu diggante ñë ak na xam nga dañuy tere wolof day bañ ngay wax nun ne ñun te ëpp ci nit ñi ñun la ñuy wax wala mm. ngay wax man nga ne ñoom waaye nun ngay wax booy wax wala nga naan ñoo ngi mm. noo ngi ngay wax am na vidéo bi nga xam ne moo existé seul boo xam ne moom la sëñ Cheikh Daar Rahman nekk da ngay dégg mu naan noo ngi wala yooyu loolu daf ci am solo ci yoonu murid da nga ciy fekk lool moo tax ñun amuñu yaras yaras mooy complexe du bu français du bu nangam da ngay Sonko sax mi koy wax bu yàggul ñu ne bi ñu jàppee sëñ bi noonu ci bi mu nekkee ci ndar nekk ci loxoy tubaab bi am na ci garab gum daan gën a nekk te garab gi xam nga jamonoy noor hmm. bu yi soo leen gisee ñoom duñu sëq ah. dañuy dañuy kii foofu sax doon naax Sonko mu yeggaale ci ndax guy moom day na am xob waaye jamonoy nawet lay ami xob Euh, bu ko defee jamonoy noor guy kaddu boo xoolee kaddu moom dana dañ naan kaddu dane sax baykat ndaa <laughs> jomb baykat di kerloo ji keram ak yooyu kaddu yi nawet da nga gis daal ñëw waaye buy moom buy li ko dal mooy euh, nawet lay saqalip waaye comme noor la woon ak yooyu wala yu demee noonu biñ ci yeggee nee nañ dañoo gis sëñ bi euh, ci garabu guy gi dong lay nekk li tax muy nekk ci garabu guy te garab gi jamono yooyu amul woon amagul woon xob yu bari wala bu jegeem no nawet it amagul woon ay xob yu bari Euh, ci noonu lañ gisee ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne sëñ bi ci garabu guy lay doon gën ndax nee na garab yenn yi tubaab bi da ko faa indi te garabu guy ji moom moo koy gën a fàttali ne fii la nekk kon nag nga gis ne yoonu murid moom li mu am yëpp fii la mm-hmm. lislaam ju sell ji la jël di ko euh, jariñoo waaye la cay euh, mbattiitum arab mu bàyyee leen ko démb rek sama dëju maam bi ma nekk ñu jékki-jékki sama maam joo xam ne jaam la woon ci sama maam bi ñu dencee pare mu taxaw ne ah am ku ne wàllu jaam ji am ci sama mbokk moo xam ne arabisan la taxaw ne déedéet loolu nangam xaraam nangam ma ne ko déedéet bañu nag dafa am loo xam ne lislaam fu mu dugg fekk fa mbattit ma te ñaawut mhm. da koy bàyyi encouragé ko nit ñi mu ngi mel ni xaraf mhm. l'islam da koo encouragé moo ne xarafal jigéen nit ñaa ngi dem tey ba di ko ay ONG ak yooyu di ko di ko boral parce que dañoo jàpp ne nitewut wala nangam la pourtant bokk na ci li nga xam ne l'islam euh, encouragé na ko tout comme bu yu mm. mel noonu tey yu mel nii ci lay am ndax tey sama maam jooju nga xam ne li tax mag bu faatoo tey ñuy ñaan yàlla mu gudd fan bokk na ci bu dee nit ki dafa doon mag démb li ma dund nga dund téeméeri at daanaka li muy dajale ci njaboot ñoo xam ne nii seen i bàyyi bàyyi seen nangam nangam daje moomu ñuy daje nga xam ne nit ñi xamante waat dëj boobu ñuy wax dafa am solo moo tax bu ñu jël suñu lépp di ko bonal topp mbattitum arab bi mm. nañ bàyyi yaras gi yaras mooy complexe man de plus murit que man gën maa hmm. doon murit da ngay faatu ndax murit man ci laay gis ne man dëgg dëgg ñuule laa jërëjëf moom moom maanaam hmm. yoonu murit mooy yoon wi nga xam ne man tey bu ma doon tànn moo ma gën a convient li ñuy wax ci ci ci ci ci kii parce que li muy hmm. jeexital ci mbattit mi loolu moo ma ñor leen jaajëfal bu baax jërëjëf euh, Abdoulaye Cissé la woon saawolof <laughs> moom moom wax dëgg yàlla euh, boo ko dégloo rek daanaka di ngay yokkuwaat lu baree baree bari ci wolof euh, ndax euh, émission bu mu def mën nañu wax ne li ëpp lu muy jëfandikoo mooy baate wolof yi. xam ne mën nañu wax waate wolof. waate wolof <laughs> waaw kay <laughs> baat mooy waat mooy bari leef bari leefu baat mooy waat waaw kon dañ koy sant di ko gërëm ci disponibilité am di ko jox dig daje di leen ko jox yéen tamit ba beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah.